baax di leen ziar nuyu suñu mbokk intone xam ñu ngi suivre nee naa saa su nekk ngeen ñuy bàyyi xel mbégte lañ am ci yéen gis nañu nga conseil beeg yëpp amuñu seen fa ñu ngi leen di kontaanee saa su nekk tey nag xale boo xam ne bëri woon na démb suñu frère Ama Dia taxawaloon combat bi muy boy pir mu daan ci faru jar ne woon nañ ko nag bis boo daanee dinañ ñëwaat te lañu waxoon amaana def nañu ko ci loolu lañ nekk boy pir nag dañ koo fekk si koñam tey nar waxtaanoo ci làmb démbam bi Ousmane danga may topp ma xool boy pir yaakaar naa ne mi ngi toog mais dañ ko bett sax waxuñu ko sax ne fa ñëw Ousmane topp ma rek ñu xool Boy Pire ñu dem. nee naa tey ñëw nañ fi yëmbal seesi fi xale boo xam ne bëre woon bu yàggul muy Boy Pire démb nag def na jaloore macha allah suñu frère Ama Dia moo taxawaloon combat boobu fekk nañ ko fi ci koñam moom comme ni la ko waxee sànq ne Ousmane ci làmbu démbam li na nag démb bëri daan na daan na démb bu rëy macha allah dañ ci waxtaan ak moom. defe naa su ma juumul Boy Pire moo toog nii est-ce que mën naa toog ngeen def lépp cool. ay mbër. Boy Pire nuyu naa la. waaw ñu ngi lay fay. aya xam nga di nuyu ñëpp xam nga waa yëmbal yëpp ñu ngi leen nuyu di nuyu ñu teew fii ci jotaay bi xam nga di leen bëggee caméra sa caméraman yi ñëpp xam nga waa Actu Banlieue tamit xam nga mooy loolu ñu lay ñaanal site bi xam nga mu jëm ca kaw ca kanam daal incha allahu rabbi waaw mais booy Pire defe naa li ñu waxoon def nañu ko ndax fekkoon nañ la école ba ñu waxtaan ak yow ñu ne la sa digganteeg faru jër ku ci daan dina ñëw ba sa kër yaakaar naa li ñu waxoon def nañu ko tey nag yow yaa daan loolu la yàlla dogal ñu lay félicité bu baax a baax di encouragé faru jër di ko wax laamu noonu la di suñu papa di wax rek nee na ndamay dugg waaye benn génn tey nag moom moo génn la ndam li ñu koy ñaanal ah bonne continuation yàlla na ko yàlla defal jàmm préparation combat bi laa bëgg ñëw ci rapidement waaw combat préparé woon nañ ko li ñu ko war a préparé xam nga mooy liñ la waxoon rek liggéey nañu dem nañu saal liggéey xam nga liggéey suuf gi contact li ñu war a contact xam ànd ak suñ mbokk fi liñ fi ñu war a dem yëpp ñu dem fa xam waajal nañ ko liñ ko war a waajee ndax xam naa jour ba boo xoolee xam ni làmb ji bàyyiwuñ dara lépp lu mu aajowoo rek def nañ ko xam nga yàlla suturaal nañu nag defal nañu ndam xam may encouragé sama adversaire far bu jar di ko wax mu gën a jàpp làmb moom nii la ñaaray dugg benn ay génn waaw di ko encouragé bu baax a baax mu gën a yokk tërënam xam nga jàppaat xam ne am na place ci laamu ji ndax ndaanaan la kenn du ko bañal ci ci laamu ji mooy loolu na gën a góorgóorlu daal li ci kanam nekk ay ndam incha allah. mais booy bi dafa mel ne li nga waxoon def nga ko ndax seet si woon nañ la école ba nga ne maay bëre maay attaqué maay daan dafa mel li nga waxoon def nga ko de. waaw leer loolu lañ préparé woon waaw kon faaw ñu def ko wane ko mooy lan ñu duma daan te yàlla suturaal nañ ci loolu am na kon dañ koy sante yàlla daal. du suñ mën-mën lépp yàllaa ko dogal rek ñun sabablu rek lañ doon def moo tax ñuy waxee ak suñu gëm-gëm lañ doon waxee far yàlla ànd na ci ñun kon dañ koy sante yàlla waaw du suñ mën-mën du suñ dara ñun ay ndaw yu xeebu lañ nekk yëmbal xam nga nekk ikiri waalo di daan suñ doole xam ñëw yàlla xeer ñu ci làmb rek yàlla defal nañu ndam daal sante yàlla daal. parce que su ma juumul faru jar nga amoon ngeen doon bëre démb suñu frère Amadia moo ñu fa woon muy arène nationale ku ne gis na xeelu jéeti bi jël bi nga daan mais bala ñëw ci jël bi jour combat bi ñëw nañ fi muy gis nañ sa koñ fees dafa mel ne gars yi wusu woon nañ la démb avant ngay dem stade. waaw lu leer combat bi man li teew ci stade bi sax dafa mujj jaaxal ndax jour bi mu tollee tombeeloon muy jeudi bi yaakaaruma woon ni xam nga gars yi nañ am jot dëgg dëgg dëgg ak événement bi nii liggéey bi mais booy daal. aw ma seen fay gis nga leen nii fu ma nekk mooy loolu nii lay demee kon aw ma seen fay waa yëmbal gi yëpp yëpp ak waa koñ bi xam nga gars yaa ngi nii mafia bi dara changé wul wax dëgg yàlla kontaan naa trop trop maanaam waaw nañ ma daal gàcce luñ ma benn yoon ndax heure bu ma ñëwee ci ñoom sit bi bu ñëwee ànd ak man jugee macha allah la ñuy wax kon sant yàlla daal waaw aw ma seen fay xaw ma lu ma leen defal billaahi mooy loolu kontaan naa ci ñoom trop trop trop trop waaw samay supporter waaw. ayca Ousmane comme ni ma ko waxee rek nee na kontaan na trop ci ay supporters am yaakaar naa li ñu ko waxoon def nañ ko nee na ko boo daanee dañuy ñëw activement le nee naa lu mu digg ak nit ñi dañ koy def tey nag moom lañ seeg si ji ko jam muy Boy démb amoon na combat moo faru jar mais Boy Pire ñëwal ma rapidement ci dugg si stade bi parce que gis nañ démb bi nga ñëwee stade stade da nga naan Boy Pire Boy Pire Boy lan bisu ndam moom bu ñëwee mhm. xool man loolu laa jàpp démb làmb ji ndax làmb ji fu ma tourné ñëpp ñu nekkoon ci làmb ñi nga xam ne xam nañ ma xamuñu ma fu ma jaar yàlla yàlla may ndam mel ni man rek maa nekkoon ci stade bi xam nga loolu kon sant yàlla la daal defalu leen dara xëy na li ma leen wan la mooy loolu sant nañ yàlla bu baax a baax a baax daal jour boobu démb wax dëgg yàlla sama xol seet na trop trop trop trop barke sëñ Bamba niñ ma teeroo ci làmb ji macha allah man xaw ma nu mu demee noonu yàgg naa bëri mais journée bu mel ni bu démb bi mosuma ko am parce que est-ce que nekkul li nga toogoon ci na loolu mais man sama adversaire tamit ci defet la toog. yéen ñaa ñëpp ngeen toog ci defet. wallaahi mu nekkoon laa ju metti mhm. xam nga man laa ji bëgguma ko woon. Mhm. xëy na moom dafa yaakaaroon ni làmb ji day yomb wala dara moo tax mu jël ma. Mhm. mais laa ji man ma sañoon maak moom ku nekk day jaar feneen. ndax xam ma ñaar ñoo xamante ni ci toog lañ ci defet lañ toog. ku daanu rek da ngay toog xaar. te moom da nekk ndaanaan bëgguma mu xaar bëggu bëggu bëgguma man tamit ma xaar. moo tax laa ji man neexuma woon. non si dama koy yërëm. ndax daanaka tax yërëmoo sa bopp yow yow mii di ci defet. <laughs> non man man samay defet xam naa li ma ko teg mooy lan jëkk ñàkk jël samay morom man leer na ma sama morom mënulu ma leen. Mhm. man loolu man yàgg naa ko wax fu ma toog dama koy wax sama moroom musuma daan. Mhm. te wan na wax naa la ko korog làmb ji gis nga ni mu demee mën nañ simmee ko arbitre di amateur yëpp ni làmb la mhm. làmb jooju maa ko moom. waaw ndax xam naa ne li may li nekk ci man nekkul ci sama moroom man xam naa loolu. waaw moom nag xam nga day bëre te boobu bërekat la ndaanaan la barke sëñ baam xam nga moo tax ma ko bëgguma di ko yéenewu ma ko ndam defet daal mooy loolu damay bëgg muy daan di bokk ak papaam dafa sonn ci moom barke alxuraanu karim xam nga dama waaw ay kiyam yu bëri dama koy yëg moo tax xam rek yéenewu ma ko woon lii quoi wax dëgg yàlla mooy loolu mais nag na góorgóorlu li ci kanam xam nga yàlla defal ko ci ay ndam yu bëree bëree bëri. mais ñëwuñu ci combat bi rapidement arbitre sifflé booy booy booy dugg si far wujar dugg si arbitre sifflé nga xam ne yéen ñaar dong yéen a war a des ca ca ca bëre ba arbitre sifflé yéen ñaar. waaw mu leer na la yow tey ci defen nga jógee moom mi ci defen la jógee muy combat yërmande. man may dugg ci gëm laamu ja gëm-gëm gi nekkoon ci man mooy lan far bu jar maa ko mën man loolu moom wér na ma maa ko ëpp xam naa ne mooy loolu man daal laamu ji moom man bi may dugg si man leer na ne ma moom defet mënu ma am ci laamu ji nii ndax leer na ne ma far bu jar mënu maa daan man xam naa loolu xam nga si ci laamu coach sam xool xam ne laam ñu baaxul mu ni ko xeexal ak moom li ma bëggoon a bëre normal sax man bëreewu ma ko. coach sam moo ko xam ne lamb ji baaxul mu ne ko xeexal ak moom ak moom la ko wax xam ko ah, ku ñëw bëre ku mën bëre nga nga bàyyi loo ko bëre bi mu mën ni ko xeexal kon gisu eh, gisul lu ko arrangé pour man. nekkul da nga indi woon xeex moo tax. non indiwu ma woon xeex man lamb ji ku wax dama naan xeexu ma xulóowu ma bëre moo ma indi wax dëgg yàlla ñu dugg si sama coach ni ma sa waay xam nga dañ koo xeexloo moon ko waa baax na xam nga ñu dugg ci géew bi mi ñuy def suñuy débat dépp mooy wër geesu ci jàkkaarloo korsam nag bu tombeek mu naan ko xeexal xam nga ma xam ne nag kii dafa umpale moo tax ma ñëw wan ko ni sa mbër maa ko daa xeex maa ko ëpp fit ñun booy baale lañ xam nga ñun mënuñoo tàppet xam nga tey bu gisee mënu ko xeexal mu ñëw may daw xeex bi rek kon man ragal laa moo wan ko li nga conseillé sa mbër maa ko dàq ba pare doo ko bëreeg moom loolu laa indi ci làmb ji moom laa bëree démb suñ course bi sax nangu loolu ma xeex moom bëre la ma xamee xam nga heure buñ bàyyantee ba ma dem ci moom daal ma bàyyil xeex bi nga bëre ndax bëre la ma xamee mais li li may def ci géew bi maa xam li ma arrangé man maa koy def man noonu laay bëree man conseil danga may conseil bu moom laay def su ma arrangé wul li ma arrangé ci géew bi rek laay def li ma fekk ci géew bi man moom laay bëree waaw loolu la mais arbitre bi sifflé ñëwul ma ci xeetu jël bi nga ko daan su ma juumul arbitre dafa sifflé booy pir cokkaas waaw cokkaas nañ moom tam cokkaas na wax dëgg yàlla. yaa njëkk a cokkaas pour feeñal béréb bi. waaw mais noonu la xam nga cokkaas nañ mu fekk si ñu moom daanaan la déggoo li ma la wax la foo ko woo mu wuyu la. xoolal acte ni nga wax ni nga ni nga ni nga jël bi nga daan. parce que jël bi ñëpp moom la ñuy waxtaan. waaw dëggantaan jël bi dama ko bëreloo moom ba mu xoox ba mu bàyyi. Mhm. loxo mënatu la jàpp mënatu la def dara ndax chargé na li mu yëkkati weñ dafa bëri. xam ma bàyyi ko ba mu jeexal tàkk ma xoo ma jàpp ba mu dëgër xëcc mu ñëw ma tegal ko 16 waaw daan ko jël bu amul benn werante mooy loolu noonu. mais télévision bi da ko préparé woon wala parce que dañu gis booy piir combat bi dafa yàgg. ngeen di léwtoo di dóorante kiy cokkaas kiy daw yàggaay combat pour lan la woon ak xëy na tamit peut-être comme li nga wax sànq li nga jóge ci defee la moom mu jóge ci def muy combat yërmande. waaw lu leer combat moom mënut a gaaw. je parce que calcul day calculer damay calculer ndax ci defet laa jóge ci defet la jóge buggul daanu buggumaa daanu xam nga moo tax ma ne defet day suul ndaanaan loolu moom moom man du ma taay di ko wax ndax man xam naa la ci nekk xam nga li nga bëgg a bëri normal sax doo ko am ndax defet boo ci nekkee tey maam yaa ngi xalaat say supporters ak booy niñ génnee démb su ma sëggee war a def dara sax sama xel day nekk ci ñoom dama naan noo tey warumoo def lu wóorul lu ma jeexal jeexalit du ma bàyyi boo gisee laa mu démb ñun ñaar ñëpp a jeexal mais dama ciy demee jom ba mu jeex takk lu ma jeexal jeexal sonn gi après laa ko yëg mais ci jour kam combat bi noonu bi ar bi ñuy bëree loolu laa gëmoon te moom laa def moom jeexal na ba won ma ko sax mais tamit du tee lu woor laay def. mais yow jeexal nga a ma la man la làmb ji ñun ñaa jeexal na jom moo fa des. parce que làmb ji dafa yàgg. dafa diire nag làmb yàgg na mais sooful. làmb ji yàgg na mais sooful boo déggee reporter koo ci benn wax bi lay wax làmb ji neex na làmb ji neex na moo tax ñaari ndaanaan lañ boole. làmb ji li ko yàggal ñun ñaar ñu toog ci defen mais buñ ñun ñaar ñëpp buñ jóge woon ci victoire gëm naan duñ bëre une minute. ndax ay attaquant la ñun ñaar ñëpp bu bëri moo yàggal làmb ji mais yàlla digal na comme que sooful rek sant yàlla waaw. waaw nga tuddee jël bi <laughs> na nu ñu tuddee jël bi yow na wax ma na nga tuddee jël bi après naa ñëw ci. waaw loolu xar jëppel lool de. waaw xar tasar xaw ma. <laughs> tus waaw ñoom nuñ ko sentiré rek. tës sambaari xaw ma dafa naa <laughs> na tëj sambaari mu naan tasar loolu la jël. waaw gis nga comme ñoom noonu lañ ko sentiré rek la demee mooy loolu waaw. booy piir nga daan far wu jar booy fan nga jëm. waaw lamb ji na li ma wax rek du ma taay di ko wax Tapha Mbeur Ada Fass ñu ma ci làmb ëpp ñu may combat ëpp ñu ma ay victoire mënuñoo dem bàyyi ma tegg bi lañ war a bàyyi ñu bëre suñ biir ñun ñoom amuñu luñ ma yóbbul du jom du laa bu dara te leer na ni ma maa leen ëpp kàttan maa leen dàq man loolu xam naa loolu waaw ñu nag man ak ñoom ñaar ku daan man soxla naa combat boobu. Ada Fass ak Tapha Mbeur guddi gi ba moom laan la. ku ci daan wala ku ci daan ku ci daan laa soxla soxlawuma ku daanu. ku daanu nag ku daan laa soxla. waxuma la ku daan ku daan ku daan laa soxla. pourquoi nga ñëw cité ñaari booy yooyu. waaw mais ay naataango lañ ay naataango lañ ñoo ñoo duggandoo ci làmb presque kon mënuñoo dem bàyyi ma pour lan. ñoom ñaar ku daan bëgg na waaw. mais wax ko acte banlieue mi nga xam ne nee naa la pour l'instant moo ndéngañ réew mi spécial lamb fi lay xewee nee naa la tey booy pir lay seesi da ngay wax acte banlieue tey Ada Fass ak kan sax Tapha Mbeur daan sax fii ñu dégg na ñu lay dama ni. Ada Fass Tapha moom soxla naa la. Hmm. à part Ada Fass ak Tapha Mbeur ban booy yaatu mi daan Ronaldinho mi daan démb euh, waaw bëgg naa ko. xam naa dama ne la. korog wax naa la ko. waxati naa la ko dama la sama morom. ñu dañ lay dugal rek bu te loolu jaal na mi ngi nii. xamalal moo ma jaaxal. mbëru 50 kilos di bëreeg 100 loolu dong laay bañ mais dama ne la képp buñ simee koo nga ne làmb la yow yow mii seetaan dama ne la kooku mënumaa daan waaw. lii moom maa la ko wax waaw maa la ko wax naa la ko waxaat naa la ko. Ah, te dinaa la ko waxaat. dama ni la dinañ dina beneen combat dina ñëwaat nga toogaat fii moo waxaat la ko waaw. te dama ciy génnaat incha allah ayca Ousmane dafa mel ne ñi li tërale ci mi ngi waaj a jeex mais dañu tàggoo tàggoo bu dul tàqalikoo waaye nag nee na Ada Fass sax dafa soxla mais man seeka booy pir booy pir yow ci ginnaaw ñoo lay suuxli di la jéem di yuuxi booy pir la la waxoon booy pir defal attention booy pir dafa mel ne war ngaa bopp de waaw man li ma la waxoon rek laa la waxaat waxoon naa la ko gis nga ko kay. Ah. kooku amatul werante pour ah, man waaw kon jeex na lii ñëwaat nag suba. li ma lay wax rek chaque jour man li nekk ci man rek laa lay wax. man tamit li la waxoon def naa ko. waaw gis nga boo daanee moo tax kontaan na ci bi ma saalu mooyee démb ni ma woo nga ko damaa xam ne def nga yëfu góor waaw lii moom kontaan naa ci trop trop trop macha allah billaahi waaw mooy li ma la wax rek actuellement lii moom ca kaw ca kanam rek incha allah rabbi voilà ñu tàggoo rek comme fi mu toll nii ah, moom dañoo ñëw nii rek ne nañ nañ la wax seet si xool ah. jël bi macha allah jël bi nga mu nekk jël bu rëy ñu ñëwoon xool la rek ba xam victoire bi moom xam naa yaa ngi koy feete tey tey loo añee tey tey loo añee <laughs> comme dab rek man ceeb non ceebu ma non ceebu ma gënal ginaar man ceebu jën ma gënal ginaar hmm. waaw dëgg neexul non nelaw naa ba doyal nag man moom coono moom fu mu nekk dama koy dir génne ba mu rek hmm. waaw doo ko mën a kii ñu tàggoo Ousmane waa li di sant waa yëmbal rek hmm. comme ni ma la ko waxee xam nga lii yombul quoi ak képp ku teew laa mujj a démb ak képp ku ku ma romb nga ñaanal ma waa yëmbal gépp maa leen sant maa leen gërëm waa Pire aw ma seen fay dañoo def déplacement démb ñëw xam nga Serigne Boub xam nga kontaan naa ci moom trop gis naa jàppale yi mu defal waa bañ déplacé wu ñëw xam nga seen transport yëpp moo leen ko jox seen billet moo leen ko jox kon Serigne Boub maa ngi leen di maa ngi koy sant di ko gërëm. waa di sant waa yëmbal yëpp. drapeau la moo nekk nii. waaw noonu. waaw di sant waa yëmb lépp di sant waa extérieur xam nga ala bara aw ma fayam waaw maa ngi koy ñaan nag xam mu gën a jàpp. war ni ko xam nga mooy loolu sa mbër a ngi nii waa Italie yëpp képp kuy bëggee Boy Pire maa ngi lay sant Nabou Diouf aw ma fayam ak yaayam Nabou Sow maman Sow maa ngi koy sant bu baax a baax ni ko wax di ñaan yi na. sonn na trop ci man barki alxuraanu karim ko sama yaay jooju daal ngaa ca ngaalaama xam nga di sant doomam Nabou Diouf du ma taay di ko sant ba mu jàppee ba tey bàyyiwul xam nga Issa maa ngi koy sant caatu njàmbur xam moom itam ko sonn la démb kenn xamul lu mu bu laa mujj envoyé nañ ma vidéo yi xam nga may sant Issa Sène bu baax a baax Sega Fall aw ma fayam Sega faal jàpp na ci bu baax a baax a baax maa ngi koy sant di ko gërëm caama aw ma fayam waa pir gi yëpp maa ngi leen sant tamit xam nga Masek Saara aw ma seen fay xam nga di sant waa yëmbal sama mafia bi nag xam nga. Fallou Balla Gaye <laughs> mafia bi mooy mafia ah. dañoo bëri <laughs> VIP tamit xam nga VIP booy Pire xam nga aw ma son VIP yaa ngi Tons xam nga Fallou Balla Gaye Fallou Silla Ale xam nga Modou Guy gi ñoom Lom waaw gaa yëpp daal ku lim juum xam waaw mooy loolu daal kontaan continuer daal di sant tamit xam waa esaaf bi xam nga awma seen fay Moussa Diouf sonn na ci trop am Diallo Ousou Pape Ndiaye Saloum 2 mention spéciale barki alxuraan lépp moom la billaay wallaay laa mujj dama ko mujj yërëm li ma la waxoon korog barki sëñ Bamba sonn na ci torop torop torop torop te fu mu dem laajul dërëm billaay wallaay mooy fay sëriñ ba sarax bu mu génne moom mooy yëkkati xaalisam dem jënd ko wallaahi lazim xam nga aw ma fayam oto bi ma dugg dem moo ko indi yaa ngi comprendre kooku aw ma fayam billaay wallaay taala man xaw ma lu ma koy wax sax barki alxuraan di sant képp ku jàppale booy Pire ci combat bi ñoom dofu jaaf ñoom dof jaaz ñoom rëm taalibe ba ñoom ñëpp maa leen sant lumbu mbaa sama fils maa ngi koy ñaanal ndam ci combat mu jëm la 14 incha allahu rabbi xam nga ak euh, Papa booy Djiné moom itam da war a bëre samedi Baye Ma Ndiaye ak waa écurie Waalo yëpp maa leen sant leen gërëm drapeau bi démb ñoom lañ ko tuddee woon kon drapeau bi daa dellu fa mu jógee waaw maa leen sant ñëpp ñoom coach Arona Sall xam nga ñoom Zil waa écurie Waalo yëpp yëpp yëpp yëpp maa leen sant Aline Seye 2 non non combat bi déggoo li ma la wax combat la boo xamante ni mënu ma ko woon a perdre wallaahi lazim xam nga Aline Seye aw ma fayam barki sëñ Bamba ñoom John Sina ñoom waa écurie yëmbal marin waaw yëmbal marin maa ngi sant ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waaw seen course beeg yëpp maa ngi leen sant daal waaw ku lim lox tey acte banlieue mi nga xamante ne naa lam la waxoon def na ko tey waaw acte banlieue di rafetlu teewaayam xam nga kontaan kontaan naa ci trop trop trop sama caméraman bu ñaaw waaw Ousmane Ousmane waaw caméra lépp naagis na waa tamit di xam nga di rendre hommage Assane Ndong mi ngi nii xam nga yàlla da koo jël Assane Ndong ci liggéeyam la nekkoon xam nekk ci géej gi di daan dooleem waaw xam nga dañoo nappi ba teer xam nga mu gi wàcc di takk bato bi xam nga ba mu koy takkee bay tourné foofu la ko géej gi jële xam mooy loolu mu ñàkk bakkanam foofu noonu waaw di ko rendre hommage di ko ñaanal yàlla xaare ko aljanay firdaws yàlla di ko di jaale waa famille am yëpp waaw di leen wax yàlla yàlla ko yàlla yërëm te xaaral ko àjjana waaw ñu ñam tuus tuuti doo ko dem. Ousmane da nga koy bàyyi mu tuus tuuti Baye Tafatine tey dem nañ fa mu toj koñ ba yow na xaw ma di nga rajaxe xaw ma di nga toj du mën a ñàkk dañ ko may rek mu kii dañ ko may mu tuus tuuti. tàggoo rek après ñu may ko mu dus Ousmane ayca lii la ñu indiloon tey ci émission bi nga xam mooy spécial lamb nee naa la ko ko waxoon école ba lañ ko fekk am solo ko day xeex day daan la waxoon ak def na ko waaye ñu nit nañu ko boo daane dina ñëwaat te ñëwaat nañu ñu ngi kontaan ci moom bu baax baax moom suma frère la suma xarit la nee naa la ragal fee te day xaje wërsëg te lu gën a jege gën a yee yëmbal laa dëkk waaye nag faralu ma ko woon mais xam nga rek <laughs> après dafa mujjee changé carte dafa mujjee changé mais garaawul kontaan naa ci Ousmane bu baax a baax nee naa la yow loo tegul loxo baaxul macha allah borom acti banlieue Amady yow tamit bég naa ci yow jaajëfal naa ñëpp naa la ayaa moo nekkoon ci waxukaay bi xale bi nga xam nee naa pour l'instant ni lu mu waxul du neex jaajëfal naa ñëpp kontaan naa ci ñëpp di wax beneen émission beneen spécial laam ci beneen mbër jërë ngeen jëf ba beneen yoon incha allah jërëjëf